Ida Fat Bintou Diop ak euh, oustaz Assane ñoom ñu ngi wàcc itam ñëw accompagner leen ci télévision Futur Média oustaz quelles sont les conditions à remplir pour être imam à la mosquée euh, naka la nit di nekkee imam. jërëjëf El Hadj Pape ni ñuy tànnee imam. Mm-hmm. ba tey moo valable ci ni ñuy tànnee sëriñ. Mm-hmm. dañuy wax ni sëriñ boo koy tàmm boo koy tànn. ngay tànn koo xam ni basirun bi ahkaami shariati maanaam koo xam ni dafa maîtriser sharia mhm. imam bi ñuy tànn ci jàkka ji mu war a nekk imam biy jiite nit ñi mhm. war na maîtriser fiq mhm. war na maîtriser sharia mooy war na xam attey laab xam attey njàpp xam attey tiim xam attey julli bu yokkee ci julli gi nan la koy defaree imaam daf ko war a xam mm. su wàññee ci julli gi nan la koy xamee nan la koy defaree da ko war a xam mm-hmm. xàmmee xabla salaam xàmmee baada salaam mm-hmm. mën a takk sëy mën a daganal diggante mm-hmm. mën a jullee néew bi faatu nga war koo jébbal boroomam liir bi doog a judd nga mën koo tudd mën a miiraas mën a jàngale sharia xàmmee sharia kon ku ku du ku jëkk rek ku tëb rek nekk imam déedéet alaaji Pape dafa may àtte mm. da ngay ba pare nekk ku maandu parce que njiit dafay maandu boo demee ci juróom-ñaari nit ñi yàlla wax ni ëllëg àjjana lañ jëm yonent bi daf ci boole imaamun aadilun mooy njiit lu maandu. koo xam ne da ngaa jiite ba pare maandu. dëddu àdduna dëddu àdduna. parce que loolu ci koor gi am na am na euh, soxna su mu xawoon jaaxal nee na seen imaamu koñ fajar gi dafay accolade jeeg yëpp doog a dem jiite am na ku ko laajoon ci carte générale bi loolu pap xam nga daganul bokkul ci critères yi maanaam mm-hmm. soxna jàmbur amoo mm-hmm. droit accolade ko mm-hmm. amoo droit jox ko loxo góor warta nuyu ku dul soxna moo tax ci dëkku ci dëkk yu réglé yu bëri dëkku naar yi surtout euh, yëfi imaama dañu ko defal ministère mais pap defal ko ay formation da ngay am formation da dem ci dëkk fekk fa imam mu mel ni ministre mais Pape dañuy am salaire. waaw am salaire am de fonction. am parce que imam moo rëy. am garde corps. am lépp. Mhm. am sa sa dara du tardé. Mhm. ba pare dañ lay defal stage. waaye mel ni sama papa retraité rek woote imam man damaa jaaxle sax moo imaamu koñ ba de ci ancien alkaati <laughs> parce que loolu am Sénégal paa dañuy retraité. commencé bi jaaw ne ay imam lañu. mais ñëw di xëccoo jàkka ji ak. njëkk a noddu c'est pas normal donc da war a respecter critères yi. ak njëkk a noddu. c'est am na benn noddukat boo xam ne Pape gis nga li ko dal bu yàggul. Hmm. micro bi tàkk na te yëgul ni tàkk na. muy jëw beneen Pape bi waroon na njëkk a noddu. deful loolu. ñi ci koñ bi ñëpp ngi dégg haut-parleur yi. naan paa joob day soof soof lu rek. di njëkkante nodd waaye dina xam ne jàkka ji sama loxo lan ko teg te taal na ko bu yàgg kat. non añ ñëpp ngi dégg li muy wax. <laughs> cat la <laughs> accident de travail la mais critères yi bëri na boo ko matalewul mënoo nekk imam du tout balaa ngaa jiite danga koy jàng mhm. balaa ngaa nodd da koy jàng mhm. nodd dañ koy jàng alaaji pap mhm. bari na nodd yooyu dégg ci Sénégal gii bu ñu la ko firiloon nga fat nga fat nga fat say nopp xam nga asadewaan laa ilaaha illallaah xam nga lu muy firi mooy maa ngi seede gaynde kenn la waaw ah, xam naa ko mënul prononcer la rek. mais Pape am na ñoo xam ne dañ koo jàngul. ni ñu ko déggee noonu lañ koy mokkalee rek dem di ko waxee noonu. Mm-hmm. asadu an laa ilaha illallah mooy maa ngi seede ni gaynde kenn la. Mm-hmm. te baat bi pour mu wér da nga naan ashhadu ashhadu an laa ilaha illallah. Mm-hmm. mais asadu rek. am ñoo xam ne ñoo nodd. am ñoo xam ne mënuñoo liqaam te booy liqaam li ngay wax ci nodd bokkul ak li ngay wax ci liqaam. booy liqa booy nodd da nga naan allahu akbar allahu akbar mm, bar soo dee liqaam da nga naan allahu akbaru allahu akbaru bukkul je sais pas moi xamuñu ko dëgg la de oustaz sooy nodd da nga naan allahu akbar allahu akbaru allahu akbar boo dee li xam ngay wax allahu akbaru boo dee li xam koy boole baru ah, baru ca baru bala <laughs> mooy différence bi en fait bar bar ak baru ak baru ok allahu akbar hmm. yaa ngi nodd hmm. ñu ne la li xaamal nga ni allahu akbaru allahu akbaru ashhadu an la ilaha allah ashhadu anna muhammadan rasulullah kon différence bi mooy baru nga xàmmee ko. donc loolu c'est à écouter parce que ñun man neexaay bi laay déglu euh, ni ñuy mbaaree ni ñuy mbëfëree ni ñuy njollee sama papa moom xam naa ni bëgg naa ko dugal studio ndax ni muy noddee fajar gi moom. loolu rek a ma neex ci ay yëfam. <laughs> mais moom du ñu juboo noddam rek a ma neex. moo tax nodd nag Pape dafa war a neex nodd ba ma ko ne yow dama lay yóbbu Prince Art seen petit gàlle moom ala àll di nga bokk ci émission bi <laughs> ma wàññi say at nodd nag dafa war a neex aussi. nodd dafa war a neex. parce que yonent bi alayhi salaatu wasalaam boo gisee mu tànnoon Bilal. Mhm. def ko muy noddukatam. Mhm. alaaji Pape Bilal dafa neexoon baat. Mhm. te yonent bi bi mu demee àjjana di ko visité. bi mu ñibbisee bi ñu ko laajee loo fa gis. daf ni dégg naa baatu bilaal biir àjjana muy nodd macha allah kon kooku àjjanaam leer na te deewagul kon nodd nit mën na ci amee ay garaat. yu kawe kawe kawe. moo tax dañuy tànn ñi koy def. baat yi dafay wér. ashhadu pas asadu. asalaatu xayrun min an nawm donc du n'importe kii mooy nekk bilaal wala mm-hmm. imam du ko jug nodd mm-hmm. du ko jug jiite très bien xam ni ngay jullee néew mm-hmm. xam ni ngay tuddee doom bu ñu waree génnee azaka ñëw laaj la ko nga xam attey azaka xam règle yëpp mën a tudd doom imaam Khalifa Niang yàlla na yàlla xamee sharia bañ ku la ger di atte dëgg bañ a xool ci ki lay jox xaalis ak ki la joxul xaalis ki xottil mbasin ak ki ko xottilul imam dafay tëddee njaaxaanaay di atte dëgg di atte sharia mhm. loolu mooy rôlu imam mhm. sunu imaam yii nag comme amuñu salaire kuy julli si ci jàkka ji te sa sa sa loxo jot sa gannaaw mhm. parce que koñ boo dëkk am na ku fa tane kuy julli si ci jàkka ji ko kooku nay gestu imam war nañu leen daggal salaire nag dee leen jëndal imam yi ay saaku ceeb di ko yóbbu ci seen kër yi di leen jëndal suukar di leen jox xaalis parce li nu yor ñoo ko yor te mhm. góor ga daf ni woon góor daf ni woon dëkk ak imam di ko lor mhm. ba génn àddina mu war laa jullee mhm. bu nee allahu akbar foofa nag moo yàlla doo nga fay wax te xamoo lu muy wax yàlla dëgg la de <laughs> c'est ah. na ni yàlla kii bu accès du maal <laughs> yàlla ku lakk léegi nii ku nay la woon <laughs> waaw moo tax yooyu alaaji Pape dafay am solo kii kii mu ngi laaj dernière question naan seen imaamu koñ euh, dafa am ñu muy nuyu ak ñu mu dul nuyu ci quartier loolu du xam naa ku ñàkk yitte la rek mi ngi naan notre imam ne salue pas certains habitants du quartier est-ce normal loolu du rôle imam. Hmm. xam naa imam bu fuy la rek <laughs> xam nga am nañu fuy <laughs> yéen ñi ci ustaas yi am nañu ci fuuy <laughs> romb naa ci ustaas boo xam ne xam nga damaa ŋàppaaral maa ngi ko jib commencé ibbi sama gémmiñ bu rëy bi di ko ree eh, yaa ustaas mais bi ma nee saba va lu jóge ci man ba tey dellu si loolu moom baaxul paa kaay man xam nga boo ma teree toog ma tere laa tëdd dëgg boobu ba tey maa ngi def yu garaaw. mais fu laak fayda rek pap yu garaaw laa koy def ci suuf mais pap fu laak fayda rek. mais kii nee na seen imam bi du nuyu. Euh, du loolu moom loolu moom alaaji pap jaaduwul. Mhm. imam daal bu buñ la ko xasee fal. ne la yaay jiite nit ñi. Mhm. ci seen wàllu jaamu yàlla. Mhm. del maslaha ak ñëpp amal ak ñëpp jàmm. macha allah koo romb nuyu ko. joxal ñëpp yitte. bul dugg ci kër gi bàyyi kër gi rolu imam alaaji pap ci ci ci quartier. mooy defar. imam bu ñëpp jaaxlee ci moom la ñu war a dem. bu tension yëpp yéegee imam mën na ko wàccee mën nga wax ak ñëpp imam rôlu sëriñ la yor parce que imam mooy nekk ak yow waxtu yëpp ci jàkka ji mais léegi dangay gis jàkka joo xam ni ñii dañuy ànd ci imam bii ñii ànduñu ci ñii naan kii doy na ma ñii naan kii doyu ma te yooyu bari na ku contre nit ki ne doyu la te tegoo ko ci dara da nga koo contour rek affaire du far ak yooyu parce que jamono Seydi Hadj Malick Seydi Hadj Malick jiite na fajar ba pare mhm. am mag mu yor tamaam di wëgg ci di fëgg ci kër yi di tëgg mhm. di wax ni ku Maodo jiite julli amoo julli yàlla en tant que Seydil Hadj Malick Pape mhm. di wër ci mbedd yi ku Seydil Hadji malik jiite amoo julli parce que Maodo matul imam te yàlla Seydil bi mu ko yëgee dafa bàyyi ba xëy suba mu wut ceeb wut dugub wut suukar dem seeti ko ba këram ni ko maa la terelee lii te di la ñaanal yàlla nag nga ñaanal ma ndax xam naa ni am na lu la yàlla may yow mi xàmmee julli gi yàlla nangul ak bum nanguwul. si di fàggee dem ba mu ci jawaar. Hmm. comme yàlla may na la yow ba nga xàmmee bi yàlla nangu. Hmm. ak bi mu nangoogul loo ñaan xëy na mu nangu ñaanal ma man Maodo ma bokk ci ñi yàlla di nangu seen julli. que kooku de gàccaat na ko rey. xam nga lu mu ko wax. Ah. teguma ko fenn fu bañ la. mooy li xew léegi. Sénégal yenn saa yi nga gis ko la bañ te amul raison. gratuitement waaw waaw. réew mi nag pap seen problème dëgg dëgg dëgg dëgg leen gën a bañ. mooy nit ko am. duñ ko supporter amul. Mm. da bokk ci famille yàlla séddale teraanga ñib ëpp ci famille bi dañ lay damal xef defoo leen dara da leen di nuyu ñu lay fayee bakkan ñii contour la ndax li nga am mbaax la nit ñi bëggatul jamono bi ngay dimbali nit ñi ci lañ la gën a bañ wax naa ko benn mbokk barki démb ma ne ko élection yi bu jotee nga yor ay alal di dimbali nit ñi te ñi ngay jox xaalis kenn du la ci voteel ma ni ko téyal sa loxo bul dimbalee ti kenn fa jamono toll di dimbali nit muy wëlbatiku ci li nga koy dimbalee pour damm say tànk téyal sa poos mhm. fa la jamono toll man duma go duma bay du ma bo xaw naka la ko olof di waxee di bay golo baabun di